première réaction ba ngeen waroon am waqaalu qaalu haza ifkun mubin kon tuuma yu ci bari boo ko déggee ñu tuumaal ko nit ku baax wala ak jullit sa première réaction moo war a doon ay sos la du dëgg waaye ndax ñun am nañ melokaan boobu mbokk jullit yi bokk na ci li taxoon ñu tànn thème bii di ko waxtaane li wolof di wax na seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel réew mi ñu ne day suñu boroom daf ñoo baaxe ay nitu yàlla yu mag yu sonn ci diine ba diine am fi cër lool te loolu day feeñ ci lu baree bari nga xam ne jafe-jafey jamono ak crise du tee mukk ñuy jël seen alal di ko def ci yoonu yàlla ci lislaam melokaan woowu Seydina Abu Bakar doon am radiallahu anhu wala sayidna omar bu yonant bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jël genn wàllu lañu in la am indi bàyyeeg la ca genn wàll ga seen njaboot wala sax indi lu ñu am lépp melokaan woowu dafee am melokaan boo xam ne dana tax ba diine jaral la ba ragal sax tawat ju la leerul du tax nga manqué sa diine mbokk yi xam ngeen ne jamono jaxasoo woon na lool barab yu jaamukaay yi yàlla yu bëri waaye am ci barab yoo xam ne dañoo sàmmowanteeg wal tusbitan fiihi jamaatan tuqiim alsalawaatil xamsa daban yaa xakim dara dindiwu ko ba baatu daban boobu dara dindiwu ko woon liñ ci bëgg a wax mooy melokaanu diine woowu ak tasawuf gu rafet googu ñu baree bari dañ koy jéem a xajamal mbokk yi dafa am nañu ko wax ndax ñu bari dañu koy gis te te seytaane dafay yàq xalaat dafa am noon yoo xam ne ñu ci bari nekkuñu ci biir réew mi dañuy jëfandikoo nag réseaux sociaux yi ñuy wax ngir di indi tuuma waxuma la ci n'importe kii de déedéet dañuy fekk kilifa gu gën a mag wala kilifa gu bokk ca ñu gën a mag ñu ne nañu tuumaal ka ko gën a jege wala nañ tuumaal soxnaam walla nañ tuumaal ki yor kàddoom tuuma yu ñaaw mbokk yoo xam ne foofu nag li tax ñu ciy wax mooy ñañu mën a jax-jaxal seen xel mooy la yonent bi sallallahu salaam defoon li ma wax léegi ba mu taxawee soxnaam safiya bun xuyey am ñu leen ñaar ñu leen dab dëgg seen tànk yonent bi saa sallam woo ne leen sama soxna la de safiya ñu ne ko kan mooy xalaat ci yow aw safaan mu ne dama ragal seytaane tàbbal seen xol lu koy jax-jaxal mbokk yi ku tuumaal ku gën a jege kilifa gu gën a mag gu jiitew yoon tuumaal soxnaam wala ku ko jege wala ka koy waxal mooy tuumaal nga kilifa ga tuumaal nga yoon wax kon nag ñu bàyyi ko xel xam ne lay taxawaayu jullit ci loola mooy boo ko déggee rek nar la loolu la alquran wax wa ndax ay nooni lislaam lañ yoo xam ne lislaam cër bi mu am ci suñu réew mi neexu leen te fu ne ñu bëgg ko faa jaare kon ñaaw njortu loolu nañu ko bay xel te lu baree bari dangay xool dem na ba ci ñu baree bari sax bañ nañu yaakaare lu baax dañuy dañuy dundal ñaaw njortu googu ci ñoom léeg-léeg ñu ne ah sëriñ sii de moom nangam teg ci lu dul noonu ana foo ko teg sëriñ si seen bopp lañ fi nekkal ana foo ko teg gisoon li ñu taxawoo lislaam gisoo li ñu yor ci yi daaree alquranul karim gisoo li ñu taxawal ci ay jàkkaaki juma gisoo li ñuy taxaw ci ay nit yu néew doole ak leneen nga xam ne ñaaw njortu googu tey am ñoo xam ne li ñuy gis ci kilifa rek mooy nit ay nit da koy ziyaare di ko jox àddiya waaye du ñu gis mukk la ko war ci ay daara yu mu yor ci ay responsabilité yoo xam ne ginnaaw yàlla ña leen ca fekk bariwul am ñoo xam ne ñaaw njortu googu dañ koy jëfandikoo sax li ma wax ci ñu baax ñi ah imaam yi day nàngam ana foo ko teg léeg-léeg waxtaankat yi day nàngam li ñuy wax gëmuñu ko nàngam rek lañ ci bëgg loolu yëpp mbokk yi ay pexey seytaane la yow xam ne dana ko bëgg a ñaawal ñu diine te di ko jaar nag ci xolu ñi nga xam ne feebar bu doy waar boobu di feebaru ñaaw njort daf leen a dal yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi bokk na ci liy waral ñaaw njort muy li ñu wax walla liy saafara boog ñaaw njort mooy nga bañ foog ni ñu waxee woon ci li koy sabab di di di interpréter interprétation bu ñaaw waaye kon interpréter interprétation bu rafet ak di wutal jullit ngànt dafa bokk ci liy saafara ñaaw njort googu mooy loo gis jullit def ko walla mu wax ko rek jàppal ne lu rafet la ci jublu ba ba ngay gis nag luy saxal contraire bi moom laa waxoon ne lu ay àddina yii ñuy jëfandikoo sax noonu lay attewoo muy présomption d'innocence fii ak amoo preuve boo xam ne dafay wante ni kii moo jëf-jëf ji kon loo gis mu tàbbee ci nit jàpp ci rafet njort fu laa waxoon ne am na sax xadis boobu ñenn ñu di tegtaloo donte ak wéram am na ñu bari ñu ne des na ci sanad xadis bi di wax ne nanga nga wutal sa mbokk jullit ay ngànt ba muy juróom-ñaar fukk waaye maanaam rafet na te lu islaam nangu la loolu ma doon wax léegi foofu la tab bi mooy ibnu sirin li mu wax ne man de dinaa wutal sama mbokk jullit ngànt bu defee dara ma xool ngànt lu rafet ma ne moom la ca jublu mais bu ma ko xamalul ngànt lu rafet naa jàpp ne am na ngànt lu rafet waaye dama koo xamut waaw naa jàpp ne kii daal li mu def lu rafet lu rafet la ci jublu donte xaw ma dëgg-dëgg la mu ca jublu ci misaal gis nga ko ci barab bu sàgganu walla mu jege barab ba jàppal ne benn xëy na daa am da leen a bëgg a dimbale waar leen boo xamut nga ne daal jàpp naa ne lu rafet dafay wut donte xamu ko bokk na ci lii saafara te sorewul ak tomb boobu ñaaw njort mooy nga bañ di juger intention ni nit ñi di am mooy nga bañ di atte seeni yéene li ma wax léegi diw def dara nga ne ah du dëgg ci moom wala yéene wu yàlla de bari waa na kuy laajal jàkka wala jumaa dañ naan ah teg ca leneen waaw kon atte yooyu nag di atte ci yéene nit atte bu ñaaw bokk na maam bañ a bañ a bu ñaaw di atte atte bu rafet ci yéene yi dana dimbale jullit bi mu am njortu lu rafet mbokk yi bokk na ci ba tey xalaat ne ñaaw njortu ci jullit maanaam liy dimbale nit ki ngir bu jàngoro jooy nee ci moom mu mën a saafarawu mooy nga xalaat ne ñaa njottu ci jullit kat dana am lu ci taftalu loo xam ne du gën mooy dana la jural bàkkaar mën na laa jural merum yàlla subhanahu wa taala kon ndax boo boo xaye in inna ijtanibu kathiran min azann yàlla ne wattandiku leen njortu yu bari teg ci inna baada zanni ismun yann njort yi kat ñaaw téef la boo xalaatee loolu dana la dimbale nga mën a rafet njort nag ci jullit yi mbokk yi jamono doy na waar lool bari na ay xalaate ki wax yuy jóge fu ne yuy jóge ci ñu gën a doyadi naam loolu daa mës di am saa su ne waaye li tax mu wutee la ci jamono ji mooy ko gën a doyadi day dugg ci ci néegam ba gëna a wax wax joo xam ne day génn wër àddina mën a yàq lu bari ci ñu doyadi kon nañu ko bàyyi xel te wattandiku te sori jikkoy ñaaw njort lu tollook ni ñu ko yàlla wattandikuloo ak yonant bi sallallahu alayhi wa kon yàlla nañu yàlla boole ci jaamam yi nga xam ne dañuy am rafet njort ndax rafet njortukat kat suñu borom sax nee na jaam bi fam ko njort rek fa la ne bu ko njortee fu rafet foofa lay fekk yàlla safaan wayit wal iyaazu billah wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman